ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ngi sant suñu boroom mi ñuy wërsëgalaat ñu daje ci néegam bu tedd bi fas yéene fàttaliku lenn ci njàngalem yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di sukkandikoo ci téere bi di bulughul maram bu alxaafiz ibnu xajar rahimahullah ñu yegsi woon ci li ñuy tuddee kitaabu nikaax ba war a jël tey fukkeelu bunt bi ak ñett muy baabu nafaqaat ca su dee mool bi ma yor maa ngi ci mille cent soixante neuf xadis an aisha radiallahu anha qaalat baabu nafaqaat yàlla dogal na dimanche bi mooy ñaar fukki fan ci weeru Shaaban alhamdulillah loolu muy won ne lii di weeru màgg woow di Ramadan mi ngi ñii tiim ñu yal na yàlla wërsëgal ñu yegg ca ca jàmm ca it mu wërsëgal ñu dund ko ci li ñuy jural ngërëmam àdduna ak àllaaxira incha allah kon it ñu sukkandikoo ci njàng bi ñu doon jàng
الباب الثالث عشر باب النفقات عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شهير لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك متفق عليه وعن طارق المحاربي رضي الله تعالى عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني
kon mbokk bunt bi mooy baabu nafaqaat nafaqaat mooy dépense yi ay fan la lislaam farataal ci nit ki ci mu war a dépense ci ñoom loole da ngay gis ne ñaka lislaam di farataal mooy ñi nga xam ne yàlla dafa def ñu woomle ba pare am jege ñaale yoo xam ne ni dañoo sës ci ñoom doon ñu aajowoo loole mu dolli ku ca itamit mooy fekk ne ñoom ñoo bokk benn diine da ngay gis ne yii bokk na ci loo xame ne nii moom la boroom xam-xam yi di tënk bala dépense boobi di war doomu aadama bi mu indi ci ay xadis bi ci jëkk an aishata radiyallahu anha qaalat daxalat hindu bintu utba imraatu abi sufyan ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suñu yaay aïcha nee na daa dugg kii di hind mi nekkoon soxna abu sufyan ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat ya rasulallah mu ne ay yómi yàlla yónni inna aba sufyan rajulun shahihun abu sufyan day dafa nay nay gu tar ashuh mooy ashaddul buxlu mooy koo xam ni dafa nay ba pare xir ci alal dafa nay lool laa yu'tini min an-nafaqa maa yakfini wa yakfi baniya du ma jox ci dépense lu ma doy doy samay doom illa ma axastu min maalihi bi gayri ilmi xanaa lu dul loo xam ne jël naa ko ci alalam fekk yégu ko fa hal alayya fi dalika min junaax ndax dana nekk ci man ci loolu benn ngant buy tegu sama kaw ci loolu fa qaal xudi min maalihi bilmaaruf yonent bi na ko jëlal ci alalam ci njëkk bu ñu xam maa yakfiiki wa yakfi baniiki loo xam ne dana la doy doy say doom muttafaqun alayhi buxaari muslim soloo nañu ko mbokk kon bu ñu xoolee yonent bi jaayante na ak jigéen ñi aaya ba suñu boroom wàcce ci moom abu tey kii nga xam ne muy hindi bi gis nañu ne makka la juddoo makka la yaroo woote bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kanamam la waaye bokkoon na moog jëkkëram ak baayam ci ñu gënoon na sonal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baayam ñu ngi ko rey keroog Uhud mi ngi noonu muy Utba bii nga xam ne moom la bintu Utba bintu Utba rey fa ay frère yu baayam ña nga leen reen keroog Badr looloo tax keroog xare Uhud bokkoon na ci ñi gën a def propagande ci góor ñi pour ñu dem xeexi moom moo woowoon Wahshi na ko boo ma reyalee Hamza mi rey sama baay danaa la goreel ci sa jaam dinaa la defal nangam ak nangam ba looloo tax Wahshi rey Hamza moom moo dem xotti biiru Hamza ba génn resam ba ngir ak kéeféer gu nekkoon ci moom amma bi suñu boroom ubbee makka ubbi lu ko ab yonentam waa makka tuub boom bokkoon na ca ñu tuuboon te it rafetal seenu tuub rasul sallallahu alayhi wa sallam xutba na jigéen ña ne leen yàlla day araamal na ci yéen bu leen bokkaale araamal na ci yéen bu leen sàcc araamal na ci yéen bu leen njaaloo yaa ayuha annabiyu ida jaaka almuminatu yubaayinaka ala an laa yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yazninna wala yaqtulna awlaaduhunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydiyihinna wa arjulihinna wala yasinaka fi maaruf comme naka suñu borom waxee ca mumtaxina loolu lépp l'islam araamal ko ci ñoom moom nag mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah yaa ngi tere càcc nag waaye yu mu yàlla yónni sama jëkkër ji di abi sufiyaan dafa nay ca jamono yooyu moo nekkoon buuru makka amoon na alal dafa nay bu xëyee du ma jox ci dépense lu ma doy mag samay doom xanaa lu dul loo xam ne maa dem jël ko ci alal ji ci yégu ko ndax loolu man am naa ca bàkkaar yonent bi alayhi salaam ne ko ah su dee loolu am na day mën ngaa jël lu la doy yàq sa njaboot waaye nga jël ko ci njëkk loolu mbokk loolu lañ ciy déggee mooy léegi la nit ñi commencé di joxe dépense su xaalis waaye bu jëkk borom kër yi liñ daan joxe mooy ay dugub ak yu demee noonu loolu moo taxoon soxna si daan dem di jël loo xamee ne ni bokkul ca la ko jëkkëram jox ci loo xam ne dana waa kër gi daan ci mën a lekk ba suur amma bu doon jamono yi ñuy joxe xaalis it su doonte ne ni soxna si waa ji yor na këram li nekk ci kër gi lay aada ci dëkk bi kenn du ko yor lu dul dana joxe masalan trois mille francs dépense moom bu xëyee mille francs wala mille cinq cent lay sànni soxna si su boobaa su dee soxna si mën naa jël ca alal ja lu mottalee dépense bi ba kër gi lekk loolee da ngay gis lislaam du ko bañ doonte ni ne bokk na lañ cay sàmm mooy la yonent bi alayhi salaam wax loo xam ne doy na la yaag sa njaboot ci ak lekk ci loo xam ne njëkk la te mooy lu ñu xam la su ko defee góor lay farata ci moom ci njabootam mooy mu jox leen ñu lekk ba suur mi ngi noonu bu dee am na ku ca rafle mu waddu ko am ma nag léeg-léeg nga gis ñaari ay erreur yu am jigéen joo xam ne jëkkëram dafa am alal ba pare mu ne dafa nay nay gi mooy lan jëndulu ma cheenu oru deux cent mille joxuma sama xew bi nangam ak nangam ila axiri mbokk yooyu nekkul lu war jëkkër xadis bi mi ngi yem ci ki nga xam ne du nangoo joxe dépense su kër gi doonte ne it borom xam-xam yi it lañ cay wax mooy jigéen bay mën a def loolu mooy jigéen bi xam ne lii kat bu feeñoo nit fitna du am cib sëyam waaye képp koo xam ne yëg nga ne ne sa jëkkër day bis bu yëgee ne yaa ngi jël ci alalam loolee mën na tas sab sëy wala mën na jur fitna waroo def lu mel noonu te xam nga ni am na góor ñoo xam ne bis bu ñu yëgoon ne man kat bu ma génnee soxna si rocceeku na jël sama poste mille francs dañu daal di wax ki di ab sàcc la tasaare mbir mi mu indi ay fitna foog naa ni yàgg ngeen dégg ma ne di nettali ñoo xam ne seen sëy mi ngi tase ci ñeenti dërëm loole day doon mbir yoo xam ne kon jullit war nay moytu jullit bu jigéen di dugg ci loolu lu dul nga yëg sa borom kër kat am na yaatu dënn gu toll ne lii nga jël ci alal ji doonte ne ko nay la waaye lii nga jël ci alal ji bis bu demoon ba feeñ it loole da ngay gis ne du nekk di yàq seen sëy muy wane it ne xadis bi day wane mbokk jëw képp koo xam ne danga ñëw cib attekat walla ci boroom xam-xam di ko laaj mbir lu dox sa digganteeg nit nga jublu ci mu atte leen walla nga jublu ci mu ubbee la loolee bokkul ci jëw kon góor mën na ñëw ci borom xam-xam na ko man kat sama jabar day def nangam ak i nangam wala soxna ñëw ne man kat sama jëkkër day def nangam ak i nangam lu ci sharia a wax su boobaa loolu kenn du ko tuddee jëw loolu it da ngay gis ne ci buntu atte ca la ko yonent bi alayhi salaam ci buntu laayi biir ay ubbee ci xam-xam muy ca la ko yonent bi waxee. waaye nekkul woon loo xam ne lu muy àtte seen diggante la na kon fokk mu wóolu jëkkër ji waaye da ko doon laay biir ci loolu almuhim ñu dégg ci yow góor ngal la waaye li yonent bi alayhi salaam wax mooy bil maaruf heure boo yoree njaboot yor leen bil maaruf maaruf mooy lan mooy la nga xam ne aada la ca dëkk ba ngal la waaye ngay def loolu ca it nga def ca la ca sa kemtalal kattan ndax yàlla tegul benn bakkan lu dul loo xam ni kattanam la fii ak aada ba nekkul di safaanoo ak aada sharia masalan boo demoon ci suñu àll bi am na ci borom kër yoo xam ne añ dong lañ gàddul njaboot gi mooy aada dëkk bi yépp añ lañ gàddul njaboot gi laahi benn soxna nettali na ma ay góor yu ko romb ak seeni fas nan diw yàq na dëkk bi jigéen ñoo xam ne ku nekk tàmmal na la añ ak reer ah tax na ba jigéeni dëkk bi yépp ku nekk yaa ngi yaa ngi coow mi ngi noonu mbokk àll bi ñu bari dañuy noot jigéen ñi jigéen bi day xëy dem ci toolu borom kër ba mais day am toolu boppam borom kër bi añ la gàddu amma ndikki ak reer soxna si moo ko gàddu mbokk lislaam loolu muy aada dëkk bi it islaam nanguwut loolu ca loolu kon mooy islaam dana nangu aada fii ak aada safaanoowul ak sharia mais bu safaanoowul ak sharia lay aada ci dëkk ba képp ko yor soxna ci loolu nga ko war a yore mooy bil maaruf mi ngi noonu ci xadis bu njëkk bi suñu delloo ci xadisu ñaareel bi an taariq an taariq al muhaaribi radiyallahu anhu قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ñun day ba ñuy ñëw Madina dañuy tombeeg yonente baa nga taxaw ca kaw minbar ba di waar nit ñi wa yaqul yaddul mu'til uliya mu ne loxo kay joxe day moo féete kaw wabda bi man taxul ca deel jëkke ca ña nga njaboote ummaka abaaka sa baay sa yaay sa baay uxtaka sa sœur wa axaaka ak sa frère summa adnaaka fa adnaak gannaaw ba ña la gën a jege ña la gën a jege rawahu nasai wa saxahahu ibn xibban wa daara qutni ñooñu wéral nañ xadis boobe saxaabi bi nee na dañoo ñëw fekk yonente baa nga ca kaw minbar ba di xutba mën nañoo wax ni bisu àjjuma la woon ndax loolu moo ëpp woon ci muy taxaw ci minbar doonte ne léeg-léeg ay cas spécial daana am mu taxaw ca minbaram ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ca kenn ci borom xam-xam yi mi ngi wax ne cay yonent bi de bañ ko jëkkee defaral minbar fekk am na benn ëkk gu nekkoon ci jàkka ji fa la daan taxaw di dem di di xutba nit ñi biñ ko jëkkee defaral minbar bi mu ñëwee ba romb ëkk gi ëkk gi dafa nekkoon di jooy jàkk ñépp di ko dégg ba yonent bi alayhi salaam dafa wàcc di ko dalal di ko dalal muy wàññi di wàññi ba kenn déggatu ko moom nag mu ne ëkk ga day buy jooy ngiree yonent bi romb na ko mu ne tey nag la nit ñi waroon a jooy ngir sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu réere ci biir nit ñu bari bokk mi ngi noonu waa ji mu ne biñ ñii ñi ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ni loxo bi joxe day mooy loxo bi féete kaw mi ngi noonu ca mooy mooy ba gën nga bokk ci ñuy joxe loolu mooy yaa gën a féete kaw yaa gën doonte ne ni am na beneen xadis bu yonent bi alayhi salatu wasalaam di wax ni yaddul ulya xayrun min yaddi sufla wa yaddul ulya al mu'ti wa yaddu sufla as sa'il mu ne loxo bi féete kaw day moo gën loxo bi féete suuf loxo bi féete kaw mooy koy joxe waaye loxo bi féete suuf mooy koy laaj loolu muy wane ne dem di laaj suufeel sa bopp la ab jullit war na koo moytu lu dul loo xam ne lor la gu tege ci kawam pexeem yépp xool na ni mënu koo teggi lu dul ci laaj waaye jullit fii yaa ngi am pexe boo mën a taxaw waruloo dem nekk di laaj am maa nag firiwul ni toujours koo jox yaa ko gën a kawe ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax nit ñi dañ daan ñëw di ko jox ay hadiya mu koy jël kenn du wax ne sa loxo gën a kawe loxo yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye loolu li muy firi mooy ki nga xam ne ñëw na moom dem di la laaj su boobaa yow boo ko joxee yaa gën a féete kaw waaye it muy wane nga fexe ba bokk ci ñuy joxe loolu it jullit da ko war a sant yàlla ndax da ngay xam ni yàlla wërsëgal ñu faggu bay jël ca lañ am di joxe ñooñu it da ngay gis ñoo gën a kawe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fuqara yi ñëw nañ ci moom kayum yàlla yónni ñun kat borom alal yi ñu nekk bu dee jàkka jaa duñu leen fa jiitu bu dee jihaate ñi ngi jihaat bu dee ne ay ajak lépp ñi ngi koy def ca ñoom ñi ngi am alal di joxe ñun amuñu alal di joxe rasul sallallahu alayhi wasallam ca la leen joxoon lii ngeen def bi ngeen jullee ba pare albaqiyat salihat mu ne kaay ma jox leen loo xam ne dana tax ngeen raw képp ku leen raw ci leneen lu mu mën a doon bu ngeen jullee wax leen subhanallah fanweer ak ñett alhamdulillah fanweer ak ñett allahu akbar fanweer ak ñett ngeen tëjee ko laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir bi ko fuqaraaw yi def yàggul dara borom alal yi yëg ko ñoom it di def la fuqaraaw yi def gaa yi defaat délégation daa ji ne ah yi mu yàlla yoon nag ñu joxoon kat borom alal bi ñu ngi koy def léegi suñu borom yonent bi ne leen nag zalika fadlullahi yutihi man yasha ngëneelu yàlla ngoog moo koy jox ku ko soob ndax kat mbokk alal it nañu xam ne fitna la ñu bari am alal taluñu jaamu yàlla kon ki yàlla wërsëgal am na alal te loolu doxul digganteem ak jaamu yàlla loolu ngëneel la goo xam ne yàlla koy defal ku ko neex waaye almuhim mbokk ñu xam ne doomu aadama bi war ngaa def ay sabab ba bokk ci ñi nga xam ne dañuy joxe bañ a def loo xamee ne nii dalay féetal rek ci ñi nga xam ne dañ leen di jox loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax al yadul uli mu'ti ulya léegi nag booy joxe booy joxe jëkkeel ca ña nga njaboote ña nga njaboote mooy ñu sus ci yow rasul sallallahu alayhi wa sallam daa di wax yaay lu tax mooy société yépp xam nañ ni sa soxna ak sa doom yaa leen war a dundal loolee mi nga noonu nit ñi kay la ñuy fàtte mooy ñeneen ñi waaye sa kër moom xam nga ne yaa leen war a dundal kon loolu moom jërul wax mi ngi noonu mu ne ko nag na nga jox sa yaay gannaaw ba jox sa baay te it mbokk ci lislaam yaay moom mooy ki ñu war a jox cër bu raw bu ñu jox baay lu dul ci benn xaal xaal ba mooy sa yaay ko woomle la sa baay moom amul dara su boobaa la ngay jox baay bu ëppee it islaam du ca wax ci loolu dara donte ne mbokk yaay jooyu yaay jooju it jullit du yey ci moom abadan yàlla wërsëgal la alal nga ne kat sama yaay am na ñeneen ñu ko war a jox comme man jox naa ko lii rek sama jaan wàccoo na ak moom déedéet mbokk jullit sa yaay bu nekkee ci aajo wóoruloo nekk ak sa njaboot di aña ko reere ko ndékki sa yaay di fande ngiree lay ba mooy am na ñu ko war a jox am na ay doom wala am na jëkkër déedéet mi ngi noonu ca loolee da ngay gis kenn ci borom xam-xam yi Arabie Saoudite fàtte naa turam al Salman Awdala wala keneen dem na ca télévision ba benn waay di ko laaj ne ko waaw ndax man sama azaka mën naa ko jox sama yaay dafa jooy jooy yi métti mu ne nit ki nan lay seetaane yaayam bam doon koo xam ne ku ñàkk la ba yeyoo azaka muy xalaat ndax sama azaka war naa ko jox sama yaay ca mbokk yaay jooju nga xam ne moo la ëmboon wasin la coono bu ne mu def ko ci yow bi ngay xale bu benn lekk ñëwee mu jox la ko moom toog jël ci deretam muy meewam di la ko nampal pendant ay at nga xëy di xalaat di ko bàyyi ci pauvreté banaan ndax war naa ko jox zakat loolee mbokk da ngay gis ne abadan du xel abadan du xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ñu ci misaal ñetti nit ña tëju woon ca xunti ma jàpp naa yéen ñëpp mas ngeen koo dégg bokk na la leen fa génne kenn ki mu ne ah yow de yàlla xam nga ne amoon naa njaboot de waaye amoon naa ay waajur waaye su ma mosaan jëlee meew mi may reere maag sama njaboot du ma ko mos sama njaboot du ko mos lu dul samay waajur ñoo jëkk reer ba suur ah la ca tegu yeen naa ñu bari ci yéen xam nañ ko almuhim daal mbokk jurit nañu xam ne ku yàlla dénk wërsëg waroo seetaan sa baay wala ngay seetaan sa yaay gannaaw loolu it yonent bi alei salaam ne ko uxtaka sa sœur yéen a bokk ndey wala bàyyi wala ndey ak bàyyi nga gis ko mu doon koo xam ne ku tumuranke la yow nga yor alal ngal la way jox ko ci loo xam ne lu ko soqali la gannaaw ba sa frère lu ngeen mën a bokk ndey bàyyi ak lu mën a doon yaa ngi jël alal bay denc ba nga gis ko muy xiif gis ko di tumuranke ngalawaay bul def loolu moom la borom bi subhanahu wa taala di wax naan yasaluunaka maza yunfiquun qul ma anfaqtu min cheyin falil walidayn wal aqrabin na ngeen jëkk ci waajur yi ak jegeñaale yi doog a tudd nag masakin yataama keneen ak keneen ak keneen waaye loolu ñu bàyyi ci xel bu baax suñuy yonent sallallahu alayhi wa sallam nag ne gannaaw ba it xoolal ñi la gën a jege gannaaw waajur yi frères yi ca mooy bàjjen yi tante yi ñeneen ñeneen ñeneen ngalawaay bu yàlla yaatalee sa wërsëg ñooñu tamit loo leen man ci jàppale nga jàppale leen ca mi ngi noonu mbokk ci xadis boobu nga xam ne moom lañ jotoon a jël وعن ابي هريره
رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته وعن جابر رضي الله تعالى عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها أخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم رواه مسلم
kon mbokk ci xadis yi ci tege bokk na ci wa an naam bokk na ci wa an abi hurayrata qaal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمملوك طعامه وكسوته dana ñeel jaam bañu moom lii di ñamam lekkam ak koddaayam wala yukallafu min alcamali illa ma yutiiq kenn du ko teg ci ci jëfit lu dul loo xam ne lu mu attan la rawahu muslim mbokk gis nañu islaam daa ñëw fekk àdduna bi ndar képp reconnaître ak njaam mu ñu fekk nit ñi am ay jaam ni ñu amee ay fasaki nag doonte ne ne lislaam daa di ci jël ay mesure ay matukaay yoodul fekk fenn ci kaw suuf mooy indi ay pexe ñaaxaate ne ni ku fi wax sa soxna yemale naan ak sama yaay goreel jaam ku fi rey nit te teyoo ko da nga goreel jaam ku fi dog ci weeru koor yaa ko tey da nga goreel jaam ila axiri gannaaw ba ñaaxaate ci ne lan mooy taxa tabbi àjjana mu ne fakku raqaba mooy fexe ba goreel jaam yi la dese kës néew ci ay jaam islaam tëral ni ngalawaay nañ leen jox dund gu doy ak koddaay gu doy bal am na riwaaye yi wax ne dee ko jox muy lekk ci la ngay lekk di sol ci la ngay sol ba da ngay gis tey bari na fii li tubaab yi tuddee les esclaves des temps modernes mooy jaam yi jamonoy tey koo xam ni mi ngi liggéey amul droit ba ñu liggéey ca salaire ba muy jot mënul sax indi genn wàllu dundam mënu ko respecté ñooñu jaam yi jëkk yi ñoo leen gën aw demin ndax ñoom dañ leen garanti loon fu ñu dëkk garanti loon lekk gu doy garanti leen koddaay gu doy moom la rasul sallallahu alayhi wasallam wax loolu mu ne jaam lekkam na doy koddaayam na doy te buñ ko teg ci co ci ci liggéey lu dul loo xam ne lu mu man la buñ ko teg ci liggéey lu dul loo xam ne lu mu man la mi ngi noonu am xadis bi nga xam ne moo ci tege mooy xadisu Hakim ibnu Muawiya القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه kon saxaabi boobu dafa ñëw mu ne yow mi yàlla yónni waaw kenn ci ñun lan mooy àq bi soxnaam am ci moom qaala an tut'imaha ida ta'imta wa taksuuha ida iktasayta alxadis wa taqaddama fi ishrati nisa xadis boobu bokkoon na ba ñuy jàng lu ñuy war a nekk soxna yi jàngoon nañ ko ci kitaabu nikaax bi ñu toll waaw loolu la ci dolli woon kon dafay wane ne kii dafa ñëw mu ne ko waaw yu mu yàlla yónni suñu soxna yi moom lu ñu leen yoral mu ne ko ah mooy soo amee bay lekk day ni ngay lekkee nga jox ko mu lekk ni noonu te loolu itamit nit ki war ci bàyyi xel mooy bañ a féetewoo sa cin boo xamee ne nii loola neex ngay lekk soxna si moom nga féetelu kook loo xam ne nii lu doy waar la heure boo xamee ni da ngay solit nga jox ko mu sol loole da ngay gis ne mënul ñàkk ci mbokk ab sëy képp koo xamee ne nii yaa ngi yor soxna ca doo ko jox lu mu lekk doo ko jox lu mu sol ku mel noonu soxna si am na droit génn ci sëy bu mel noonu mi ngi noonu ci wàllu googee muy wane ne kon fokk góor moo war a gàddu loolu même bu doon tene ne soxna si dafa doonoon ku am alali boppam teewul góor la yàlla sant mu war a yoral soxna si ay dépense am léeg-léeg nag erreur bi ci am ci sunu jigéeni intellectuel yi mooy di xëy suba bàyyi kër gi dem liggéeyi di fayeeku sa salaire bu mat sëkk ca kër gi xorom sax doo ko jënd bu ñu waxee nga ne góor a war a def lépp mais góor bi mu waree def loolu dafa amoon àq ci yow nga toog ci kër gi gardeel ko këram moom mu dem liggéeyi mais bu dee daa xëy nga xëy li war góor gi mooy la war loolu moom ñu bàyyi ci xel bu baax ko defee kon góor gi bu la toléré lay balay bàyyi ngay xëy comme ni muy xëy ngal la waaye it la ngeen bokk am bokk leen ci yor kër gi loole mooy la nga xamee ne nii mooy la gën a maandu waaye bu dul looloo moom bépp jigéen bu toog kër jëkkëram yoral ko këram même bu doon millionnaire la dépense bi moom jëkkër ji la war koddaayam jëkkër ji la war comme niñ ko jàngee ci xadis boobee amma bu dee xadis bi ci tegee وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الحج بطوله جابر بمي نتلي أجب يننتبا تحديث بقدم بوبي قال في ذكر النساء يننتبا خلنا بمي تدسخنيا ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف آه قمل ندي soxna yi am nañ ci yéen droit yéena leen war a woddu yéena leen war a dundal ci maaruuf ca lañ xamee ne nii lañu war a dundale jigéen nii lañu war a wodde jigéen ca société ba li valable ci arab bi mën na bañ a valable ci nit ñi ñuul li valable Dakar mën na bañ a valable Casamance waaye daal lay aada ci ne lii la ñuy lekk yow góor war nga koo jox sa soxna mu lekk lay aada lii la ñuy sol yow góor nga jox ko sa soxna ah mu sol ni ngi noonu amma bu dee xadis ci tegee xadis abdullah ibnu umru ibnu amrin radiallahu anhu anhuma qaal qaala rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam kafa bilmari isman an yudayi'a ma yaquut rawahu nasaa'i wa huwa inda muslim bilafd an yaxbisa an man yamliku quuta mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane doy na ci doomu aadama bi bàkkaar lu ko mën a alak mooy ki nga xam ne yaa ko war a dundal nga sàggene ko ab dundam muslim solo ko ne mooy ki nga xam ne yaa ko war a dundal nga daal di làqu ci moom amul ci yow accès ba mën a jël ci yow dund bi nga ko war a dundal loolee mbokk dañuy gis ni waxuma jabar ak doom waxuma jege ñaale boo xam ne yaakaarul ku dul yow waaye dañ cay boole même bàyyuma yi sax képp koo xam ne yàlla da ko wërsëgal ay bàyyuma bàyyuma yooyee yaakaaruñu ku dul moom amul droit seetaan leen bañ leen a jox ñu lekk ba sax bu doon tene ne loi l'islam moo fi nekk ñu yëg ne kii kat mi ngi ak ay nag wala ay xar ci du leen dundal suñ ko avertir delluwul gannaaw buur am na droit jël alal ji daal di koy jaay par force jox ko koo xam ne moo ko mën a dundal rasul sallallahu alayhi wasallam jox ñi ci misaal bu doy waa benn soxna boo xam ne benn muus la jëloon tëj ko ci benn place joxu ko lekk joxu ko naan ba mu dee mu ne loolu la ko yàlla mbugale yowmal qiyaama doonte ne bu ko doon jox lekk ko naan dagan na suñ borom mu ne moo ñu tàggatali nekk ci kaw suuf yépp soo mënoon a jàpp gaynde tëj cib néeg bu dee dalaa neex waaye nga fexe ba dundam du manqué loolee kenn du wax xaraam na nga jàpp benn picc tëj ko ci kaaf di ko jox dund bu doy kenn du wax xaraam na waaye képp koo xam ne jël nga ko ci jaamu yàlla yi nit la bàyyuma la nga dugal ko ci broq ca lam yeeyoo ci lekk joxoo ko ba lor dal ko ca loole yow yaay responsable ci loolu mi ngi noonu ci wàllu googe bu dee xadis bi nga xam ne tege na ci wa an jabir yarfa'u fi lxaamili almutawaffa anha zawjaha jaabir day doon na wax ci xadis boo xam ne da koo yéege ca yonente ba ci ki nga xam ne dafa ëmb fekk jëkkëram dee mi ngi ànd ak ëmb boobu qaala la nafaqata laha bu la ko mel noonu day amul dépense bu ñuy war a dépense ci moom axrajahu albayhaqi wa rijaluhu thiqat walakin qaala almahfuz waqfuhu mu ne doonte ne ne lañ gën a wattu mooy wax ji ci waxi jaabir rek la waxul ne yonent bi alayhi salaam moo ko wax wa sabata nafyu nafaqa doonte ne sax na dàq gu ñuy dàqal ku mel noonu it dépense fi xadiisi Fatima bintu Qays ci Fatima bintu Qays radiyallahu anha kama taqaddama comme ni mu wëyee ala kulli xaal mbokk ñaari xadis yi day wax benn soxnaa ngi nii jëkkëram faatu bàyyi ko mu ëmb ndax kooku dañ koo war ci alalu jëkkër ji di ko dépense ci moom ba baa muy wasin xadis bi ak borom xam-xam yi ci sukkandikoo dañ ne déedéet soxna si ba faatoo yàlla jox na ko cir ci alali ka nga xam ne moom mooy borom këram li nekk ci biiram yàlla jox na ko cir ci alalu ka nga xam ne mooy bàyyam bi faatu kon kooku lool lañ koy féetale ñi ngi noonu mënoon na am ne li waa ji bàyyi lépp soxna si moo koy jël parce que bu doon waa ji amul lu dul benn doom bu góor moom la soxna si ëmb la chaque ne bu fa ay waajur nekkul moom mooy jël lépp kon kooku kenn du ko ca dollil di ko jox ay dépense mu safaanoo nag ak jigéen bi nga fase jigéen moom boo ko fase mu yóbbaale ëmb dañuy gis ne ku mel noonu da ngaa war di dépense ci moom ba ba muy wasin amma xadisu Fatima bintu Qays bi it mi ngi àgg ci ki ñuy fase ñetti fase ki ñuy fase ñetti fase kooku it li ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne jamono bi muy iddewu dundam warul ka nga xam ne mooy borom kër ga donte ne bu dee lu mel ne ay mazhab Maalik ñoom daañ ne dañ koo war a dëkkal waaye dund ba warul am na nag ñoo xam ne dañ ne dund ba ak dëkk ba yépp warul doonte ne ne am na ca ñenn ci ñoom ñu ne mook ñeneen ñi ñu fase yem te mooy dañ koy dundal di ko wodd almuhim li mu wa li muy junj ci xadis boobu rek mooy ku ñuy fase ñetti yoon boo doon dégg ñaari xadis yi dalay wan ne ki jëkkëram faatu mu ëmb ëmb boobu kenn du ca dépensé mu mel ni ki ñuy fase ki nga xam ne dañ koo fase ñetti fase ku mel noonu it jëkkëram gàddootul la nga xame ne nii mooy ab dundam amma bu doon premier fase ba la wala ñaareelu fase ba nga xam ne dañ koy tuddee raj iya nga xam ne mën naa dellus ci moom saa mu takk ko su boobaa moom jëkkër ja moo gàddu dundam koddaayam ak lekkam mi ngi noonu wallahu aalam
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدا احدكم لمن يعول تقول المراه اطعمني او طلقني رواه دار قطني واسناده حسن وعن سعيد بن المسيب فالرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه
naam kon mbokku ci bunt bu mujj bi m- ci bind buy mujj yi wa an abi hurayrata naam radiyallahu taala anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى loxo bay féete kaw day moo gën bay féete suuf wa yabda'u ahadukum bi man ya'ul kenn ci yéen nay tàmbalee ña mu njaboote taqulul mar'a jigéen kat moom day wax ne atimni aw talliqni nang ma jox ma lekk wala nga fase ma xadis boobu mbokk bu ñu xoolee day dellu ca xadis bañ jëkke woon te mooy di ñaax rek ne fexe ba bokk ci ñiy joxe loolu la jullit war a di sabablu mu ne it heure booy joxe it xoolal ña gën a sës nga jëkkee ci ñoom ndax loolu bu amul day jur fitna ndax sa soxna kat bu yëgee ne am nga te doo ko jox dana la jox ma lu ma dundee wala nga daal di may fase bu dee xadis bi nga xam ne topp na ci wa an said ibnu musayyab fi rajulin laa yajidu ma yunfiqu ala ahli biñ ko laajee na ko waaw góor goo xam ne amul lenn lu mu dépense ci soxnaam qaala yufarraq baynuhuma mu ne ko mel noonu dañuy teqale seen diggante axrajahu sayid ibnu mansour an sufyan abi zinad anhu qaal qultu li sayid ibnu musayyab sunna kooku mu ne waaw sayid lii nga wax moom sunna la fa qaala sunna mu ne ko sunna la wa hada mursalun qawi mu ne lii day nekk na xadis mursal boo xam ne bu dëgër la xadisu mursal mooy koo xam ne lim nettilee ci yonent bi am na ko ci dagg yu mel ne sayid ibn musayyab papaam moo doon ànd ak yonent bi moo doon sahaaba waaye moom du sahaaba kon bu nee yonent bi nee na rek am na ci keneen ku mu ko déggee loolu la ñuy tuddee mursal almuhim mbokk xadis bi day wone ne sayid daf na nit ki góor gi nga xam ne dem na amul lu mu dépensé ku mel noonu mu ne dañuy teqale digganteem ak jabaram waaye mbokk loolu heure bu ñu koy waxit dañu ragal fitna waaye bu fitna amul jigéen dafa war a muñal borom këram amma nag su soxna si demee ba moom amul benn pexe bu mu mën a amee dara jëkkëram moo ko war a yor ba pare amul dara lu mu ko jox loole am na droit ñaan baat ci loolu waaye la chaque soo delloo woon ci borom xam-xam yi wax nañ ci ay wax yu bëree bëree bëri soo ko doon tënk rek dañ naan la soxna si sa borom kër day su dee ne amul rawatina bu dee ñàkk ga da koo dab su dee benn waaye jóge fële amul dërëm ñëw takk jigéen jigéen bi xam ne kii kër takk si la ko amul dërëm ku mel noonu moom mën na génn ci sëy ba amma bu dee bi mu lay takk yàlla man na ko may na ko mu dem ba ci biir mu ñàkk dañ naan la soxna si muñal soxna si muñal lañ lay wax waaye kenn du tëb tas tas seen diggante ah bu ñu demoon nag ba nga xamee ni pexe jeex na soxna si munul muñ coono bi nga xam ne mooy ñàkk a lekk ñàkk a wadd ci biir kër gi su boobaa da ngay gis ne am na droit ñaan baat ci loolu amma bu dee xadisu omar an omar radiallahu taala anhu qaal annahu kataba ila umarai l ajnaad fi rijalin gaabu an nisaa'ihim omar bind na jëm ci ñi nga xam ne ñoo jiite woon armée yi ci góor ñi nga xam ne dañoo bàyyi ay jigéen seen gannaaw an yaxuzuhum bi an yunfiqu aw yutalliqu nañ leen jàpp ne leen soxna yiñ bañi bàyyi gannaaw nañuy fexe lijjanti seenub dund wala ñu fasa leen fa in tallaqu baasu bi nafaqatin ma xabasu ca bu ñu fasee jege nit temps bi ñu toog ca dund luñ ko nañ joxe dund boobee fay leen ko axrajahu shafiiyu summa albayhaqi bi isnaadi alxasan ci jamono omar armée islamique tasaaroona nga gis ñoo xam ni dañ daan dem au front di fa yàgg lool jublu rek ne dañuy jihaad fi sabilillah bàyyi seen kër bàyyi yuñ fa benn dépense omar nag ne déedéet yéen ñi jiite armée yi na ngeen recensé bépp koo xam ne bàyyi na fi soxna na lijjanti lu waa kër gi dunde su ko mënul na fase soxna bi te loolu it mbokk dafa mën a jur la nga xamee ni moom mooy fitna mi ngi noonu te mooy jigéen ñu bari nga xam ne seen ngëm dëgërul su ñu nekkee ci kër yor njaboot gisuñu so borom kër bu leen jox dërëm loole mën na leen a yóbbu ñuy sàkku ji lu xaraam te jii am na ay yenn jigéen ay suñit ñu baax ñu demoon polyclinique di waxtaan ak jigéen ñiy jaay seen bopp foofu nga xam ne suñu état yi dañoo tëral fokk nga am carnet de santé mais lu bari ci ñoom bu ñuy def boo def ay étude luñ lay wax mooy ñàkk jëkkër amuñu jëkkër amuñu ku ñu jox sama baay dee na yaakaaruma dara waaye su ma amoon lenn lenn lu ma mën a dund rek lii de du ma ci dugg donte ne loolu du lay loolu du lay waaye nag quand même am na ci it ñoo xam ne bu ñu amoon jëkkër ak dépense duñ dem di def loolu te it xam ngeen mbokk loolu neexul guddi nga gàddu sab sac bi wëndeelu ci ñu lay fay ay mille francs yi deux mille ak risques yi ci nekk loolu kon moo tax ba góor soo demee ba xam ne sa soxna kat yëng ne mënulu too ko jox dépense te yëng ne ak muñ munu ko la gën mooy bàyyi ko ngiree moom mu dem mën a am góor boo xam ne dana ko mën a yor amma bu dee xadisu abi hurayra radiyallahu anhu taala anhu qaal jaa rajulun ila annabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal benn waay daa ñëw ci yonente bi alayhi salaam mu ne ko indi dinaar yàlla wërsëgal na ma benn dinaar qaala anfiqhu ala nafsik mu ne ko dépensé ko ci sa bopp qaala indi aaxar mu ne dencoon naa beneen de qaala anfiqhu ala waladik mu ne ko dépensé ko sa doom qaala indi aaxar mu ne dencoon naa beneen de qaala anfiqhu ala ahlik mu ne ko dépensé ko sa soxna qaala indi aaxar mu ne ko am naa beneen qaala anfiqhu ala qaadimik mu ne ko dépensé ko ci sa booy sa jaam bi nga yor ci kër gi qaala indi aaxar mu ne ko ah man am naa beneen qaala anta alamu mu ne ko yaa gën a xam foo koy def axrajahu shafii wa abu daawud wa lafz lahu wa axrajahu nasai wal xaakim bi taqdimi zawja ala al walad xaakim moom soxna solo jëkk a tudd avant muy tudd doom ala kulli xaal mbokk waa ji dafa ñëw di laaj yonent bi alayhi salaam mu ne ko ah yow yàlla yéen ab dinaar de laa yoroon fan nga may sant ma def ko fa mun na ko jëkkeel ci sa bopp mi ngi noonu te wala fi dañ naan bala ngaa laax jaay da ngay jëkk a laax lekk waaye maam ñu ne mbay sawewu tànk tubaab yi gën a nay ñoom charité bien ordonnée commence par toi-même booy génne sarax jëkkeel sa bopp te loolu yeneen tubaab sa moo ko wax mooy kon amoo lu dul lii jëkkeel sa bopp mu ne ko waaw beneen bi nag mu ne ko nag nga jox sa soxna jox sa doom jox say waajur jox ñi la gën a ñi la gën a jege te loolu it day fekki hadis bu njëkk ba rek mbokk lépp looy xam ne yaa ngi koy def ci lu baax commencé ko sa bopp am na ñu ñuy tuddee samba àllaar ñoo xam ni kuñ dajal ci mbedd mi loo fekk seen poos yaa ko moom am maa kër ga nag dara ñun ñu yàlla nattoo ay imaam rek leen gis jigéen ñi woo di ñu wax lu demee noonu day toog mi ngi nii du ma jox dara te bu dejeeg nit ñi nangam nangam mbokk loolu ëpp naa def booy def njëkk sa kër nga ko war a jëkkee la ca des nga doog koo génne kër gi amma nag mbokk xadis bi ñuy mujjee mooy xadis yi an bahzin ibnu hakim an abihi an jaddihi jëli nañ ci famille boobu radiyallahu anhum qaal qultu ya rasulallah man abarru mu ne ko waaw ayumi yàlla yónni man kan lay gën a war a defal njëkk qaala ummak mu ne ko sa yaay qultu summa man qaala ummuk mu ne ko gannaaw ba sa yaay qaala summa man qaala ummak mu ne ko gannaaw ba sa yaay qaala summa man qaala abaak mu ne ko sa baay summa al aqrab fal aqrab axrajahu abu daawud wa tirmidi wa xasana ala kulli xaal mbokk xadis bi yàgg ngeen ko dégg mooy rasul sallallahu alayhi wa sallam bi waa ji ñëwee ne ko kan laa war a gën a laaye biir mu ne yonent bi alayhi salaam na ko sa sa yaay sa yaay mu ne ko waaw gannaaw sama yaay mu ne ko gannaaw sa yaay sa yaay xam ngeen mbokk loolu pédagogue rek mu mën a waxee noonu mooy ku mën a jàngale mu ne ko waaw gannaaw sama yaay mu ne ko gannaaw sa yaay sa yaay ba ci ñeenteel bi la koy doog a wax gannaaw sa yaay sa baay ca loolu itamit bokk na ci maandu teg suñu boroom ay way jur ñoo yor doom waaye yaay dafa jaar ñetti étape yoo xam ne bàyyi jaaru fa ba ñuy ëmb yaay rekk ëmb ba ñuy wasin yaay rekk wasin da ngay dégg ñu ne mucc na biig ay mucc na ci dee da ngay gis ne doom mënul fay way juram ñu bari tey am doom ci hôpital yi dañ leen di césarienne xot ci seen biir yi doo ko génne doom ci bu ñu xottiwul biir bi it da ngay gis ne coono yu dul jeex ñetteel bi mooy nampal bi pendant deux ans mu lay nampal coono bu dul jeex amma nag la ca des yàgg bàyyi ko bokk moo tax rasul sallallahu alayhi wasallam ne ko ñetti yoon defal njëkk ci sa waajur gannaaw ba nga des sa baay doog a wax ñeneen waaye benn waaye bu ñuy wax mbeng day nettali dama benn koo xam ne lu mu liggéey yóbbul direct sëriñ bi benn waayem na ko waaw sëñ bi xanaa yoo xamoo ne sa sëñ bi li nga koy fonk fonk sa bàyyi bii di dund nga war a gën a fonk mu ne waa ji dafa yuuxu daanu ndax pourquoi mu naan ko sa bàyyi nga war a gën a fonk sa sëriñ bi mbokk mi ngi noonu lan moo war a loolu mbokk ñàkk a xam ñàkk a xam waaye nan ngay jëlee teraanga jéggi bàyyi bi la jur dem di ko jox bàyyi keneen mbokk loolu du du xel ala kulli xaal mbokk loolu la ko yonent bi alayhi salaam wax su ko defee doomu aadama ki mu war a gën a defal njëkk du soxnaam du yaayam du sëriñam du général d'armée du kenn ki nga war a gën a defal njëkk war a suufee ci kanamam toroxlu ci kanamam wàcc say laaf ci kanamam mbokk koy kooku muy say waajur ca waajur yooyu kenn ci war a jiital moom mooy sa sa yaay gannaaw waajur yi nekk nga xool bajjan yaag nijaay yaag frère yaag sœur yaag ñooñu ñoo gën a yey ci njëkk boo xam ne yaa ngi koy def mbokk lii mooy bind biñ jëloon ci baabu nafaqaat yal na yàlla yombalal ñu lu ñuy joxe yal na yàlla xiirtal ñu joxe fa mu gërëm ñu joxe fa yal na yàlla nangul ñu àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw mbokk bi muy laaj ci xamoo internet bi ne li nga xam ne moom mooy faratay njàpp ala kulli xaal faratay njàpp moom la ca jiitu mooy nga yéene gannaaw ba nga raxas sa kanam loolu mooy fi karaw di saxee ba ci suuf si kimba dëggante nopp ak nopp raxas say loxo bu nekk ba baa ngay romb sa conco gannaaw ba daal di massa sa bopp raxas say tànk bokk na ci it tegeele bi la ëpp ci borom xam-xam loolu la ñu wax ci farate lay bokk mooy bokk na ci it la ñuy tuddee gaawe gi mooy alfawru bokk na ci it gaawe gi la mu ci jublu mooy doo raxas fii loxo bi ak kanam gi dem ba mu yàgg la nga doog a jël tànk yi fokk nga tegale ko ca borom xam-xam yi am nañ ci juyoo tuuti tegale gi fu mu yem la. gën a diggu doomu ci ñoom ñu ne wurloo bàyyi ba cër ya wow ngay doog a raxas la ca des mais tant que wowul loolu dara newu ci la ca tege it mooy li ñuy tuddee jonje bi ca farata yàlla bokkoo kon daal da ngay gis na yéene ngi noon di benn raxas kanam a ngi noon di ñaar loxo yi di ñett bopp ba di ñeent tànk yi di juróom tege la ba di juróom benn la nga xam ne nii moom mooy jonj ga nekk la nga xam ne nii moom mooy juróom-ñaar loolee da ngay gis ne la ñuy tuddee alfawru itamit dañ ko caa boole ca mooy doo ko yeexee lu nekk ak leneen loolu mooy lu ëpp ci borom xam-xam yi la ñu wax la ca des nag ay sunna la wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw naam waaw naam bismillah waaw naam
colin aada yi
colinu aada jigéen ak góor jigéen ak góor waaw colin aada yi
waaw col ci aada moom buñ koy waxee dafay am lu charia jëkk a tëral gannaaw li charia tëral nag am loo xam ne aada tëral na ko charia moom li mu lay tëralal mooy soxna si li muy sol buy génn këram na doon loo xam ne yaramam yépp day nëbb ba mu dis kanam gi ak la nga xamee ne ni mooy ci bu jare yi dana la chartool it ne la bu mu xat bu mu yaraax bu mu kaza bu mu kaza léegi nag soo demee ci aada yi am ñoo xam ne ay mël fa la ñuy sol am ñoo xam ne grand bubu la ñuy sol am na ñoo xam ne ay robb yaatu la ñuy sol ala kulli xaal loolu moom dafay aju ca la nga xam ne mooy aada ya mi ngi mel ne rek ci góor yi soo demoon ci naar yi lu ci bëri xamis la ñuy sol nga ñëw ci ñun ñii di sol ay xaftaan ñii di sol ay grand bubu loolee moom aada la waaye nag charte charia moom ku nekk da ko war a respecté amma nag dëkk bu nekk ak aaday boppam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam mbokk bi doon waaw bismillah waaw waaw ah waaw kon kon daay mooy mooy colom mooy solam mooy mu solu doonte ne ne col googu lu xaw a compliqué suñu jamono tey ji mbokk islam bi muy wax col booba col daa tumuranke ñu ne bu sedd bi jotee war nga ko yoral benn yére bu muy sol ci sedd bi bu tàngaay jotee benn yére bu muy sol ci tàngaay bi soxna si bu amee ñaari yére sa jaan wàcc na amma jamono ji nga xam ne jigéen ñi ba bataan dañ koo xeeb sax léegi dañ jël miir ba miir rek sarse ko ba mu fees del del del loolee moom kenn du la wax farata la da ngay jëndaat yére di jox jigéen ñi am na jigéen ñoo xam ne jënd yére jox leen sax est-ce que du deli ñu ngi noonu boo xam ne li mu denc wallaay bu toogoon un an plein bis bu mu sol dootul sol bi ci des du tax mu jeex loolee moom mbokk yu lu ñu yàlla subhanahu wa taala nattoo la comme na ko yonent bi alayhi salaam waxe woon wallahu aalam naam mbokk bi doon wax bismillah waaw waaleykum salaam naam
léegi ay tàntaama la yor mu dem ba mesure ba ba ba waajur yi léegi ndax dafa war a génne tàntaama yi ci wàllu waajur yi
xale boo xam ni bi muy xale la ko ay tantaam yor mu dem ba màgg ndax day tax mu gënale tantaam ci kaw waajuram déedéet tantaam da ko yor comme ni ko masalan bàyyee mi yore mais gis nga sunu yeneen ti dani jiitaleel sa yaay sa yaay sa yaay sa yaay doog a wax sa baay ca bënnam sa baay ci kanamam nga juddoo moo la yor kon tante yi daal am nga ci ñam àq boo leen gàddul aqu mbokkoo addu aqu yor biñ la yor bi ngay xale waaye nag lu tax mukk nga daal di koy gënale leen ci saw kaw wayjur bi nga xam ne moo la ëmboon wasin la nampal la déedéet ñu ngi noonu kenn du leen gënale ci loolu naam mbokk bi da doon waaw bisimilah waaw benn xale la nañ ne dafa am benn oustaz bu ko ni at yi ci ñëw yëpp daal jigéen li la wax moom mooy dundam ak dëkkuwaayam ak lekkam waaye faj moom gisuñ ko benn
ala kulli xaal faj boobee suñu borom yàlla tudd ko fenn do yonent bi tudd ko fenn doonte ne fañ koy déggee mooy suñu borom mu ne wa anchiruhunna bil maaruf nekk leen ak ñoom ci njëkk société bi ñu bari xam nañu ne sa soxna bu feebaree soxna soosu nga xam ne nii suñu borom yàlla nee na sa kiiraay la sa borom yàlla nee na sa tool la loolee da ngay gis bu feebaree war nga ko mën a doon ku koy taxawu loolee ci wàll googu lañ koy dugal day mel ni jigéen ñi naan islam waxul fenn ne jigéen dafa war a toggal jëkkëram dafa war a fóotal jëkkëram na am loolu doo gis texte bu naan jigéen yaa war a toggal sa jëkkër war koo fóotal waaye ñu ngi koy dugal ci ashiruhunna bil ma'ruf na ngeen nekk ak ñoom ci njëkk bu dee société bi li ñu xam moo di ne góor buy amee soxna soxna si moo koy toggal di ko fóotal yow nga ñëw ne du ma toggal du ma fóot ndax gisuma ko ci texte déedéet mbokk maaruf moo lay yóbbu ci loolu loolu daal moo tax ba soxna si yow yaa ko war a taxawu ci lekkam ak ci naanam la chaque ne boo feebaree soo amee kattan nga faj ko loolee min baabil uulaa la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala ah ah boobu demee tam dépense bi dépense bi suñ ko déedéet dépense xaalis sax daawuñu ko joxe dépense jamono yi jëkkee xaalis sax dawuñu ko dexa dépense nit ñi ay sàq la ñu am ak yu demee noonu te it faj jamono bu njëkk ba amul woon ordonnance yi ñu daan jënd ku ne xam ne ne amul woon loolu nit ñi ci plante yeeg sungu fi lañ daan fajoo ala kulli xaal daal du na rek lu texte ñëwul directement kenn du ko jëfee waaye am na yoo xam ne dañ koy déggee te la nga xam ne mooy acte général yi ni ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw xanaa ñu mujj ci mbokk bi rek waaw bismillah damay laaj jigéen boo xam ne bëgg ay règle est-ce que mën naa dugg ci jàpp ci ay règle
ala kulli xaal ndax jigéen bu ànd ak règle war naa mën a dugg ci jàkka toog di teew ay dars loole boo gisee ñu koy posé mooy àdduna léegi gëndaloo na téere yi tasaaroo na fu nekk am na ci ay borom xam-xam yu naan texte bu leer buy araamal jigéen ànd ak règle dugg jàkka amul kon mën naa dugg jàkka toog ca waaye daal li ñuy tànnaloo nit ñi toujours borom xam-xam yi bu doon dañ leen dajale ñuy téeméer quatre-vingt-dix yépp ne lii baaxul mu am dix yu na baax na it damay tànn ànd ak quatre-vingt-dix yi jumhurul ulama li ñuy wax mooy jigéen bu ànd ak baax warul toog ci jàkka su ko defee daal comme jàkk yu bëri prévoir nañ ci ay cours jigéen bu ànd ak baax bëgg a déglu dars na ñëw toog ci cours ba bu ko yàlla yombalee mu doog a dugg ci jàkka ji loolu lañ ca tànn ca waxi borom xam-xam ya wallahu subhanahu wa taala aalam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk